culturel yi nga xam ne dañu jàpp ne xëy na moo war a soppi transport au Sénégal moderne tukki nga yàggul dem nga Chine dem nga ci yenn réew gis nga nañuy transporte xam nga ne on est à des années lumière de ce qui se passe ailleurs mais maa ngi ciy ñëw léegi alors euh, euh on va commencer par euh, Pape Mokhtar Pape man li ma njëkk jaaxal ci li El Malick expliqué mooy pour mu départ bi muy def le bilan des accidents accident yi ci réew mi metti na ke loolu kenn du ko werante mais ndekete boo comparé ce qui s'est passé premier trimestre bu premier trimestre bu 2024 li accident am ci réew mi wàññeeku na faat yi aussi wàññeeku na pour yow lan moo war a expliquer baisse boobu c' est l' action du ministère wala des forces de l'ordre yi nga xam ne quand même remarqué nañ seen présence en tout cas ci yenn événement yi waaw mais dafa am ay euh, événement yoo xamante ni dafa doon favoriser ay accident mi mhm. tabaski bi di màggal bi di korité bi et ñu gis ci quand taxawaay boo xamante ni bu am solo bu ci euh, ministère bi amal euh, surtout nag ak Dakar dem dikk yi maa ngi mhm. sax la dernière fois ñu ñu gàmmu gi zéro accident nañu def Euh, loolu noonu tey jii dafay tax ba chiffres yi dañuy dañuy dañuy dañuy wàññeeku euh, parce que avant euh, tabaski da nga doon gis ni ñu bëri dañuy tàggoo dem tabaski mais malheureusement dañuy ñàkk seen bakkan effectivement màggal de la même façon aussi noonu nga doon dégg accident dégg ci li nga xamante ni aussi ay nit ñu si ñàkk seen bakkan noonu aussi nga ko doon déggee ci Korité donc bu ñu organisé woon telle sorte que li nga xamante ni mooy li war chauffeur di daw heure normale di wàcc heure normale li nga xamante ni aussi dañ ko doon gis mooy ci ñett événement yooyu euh, nit ñi di daw di wuti ji ay clients loolu yëpp amu ci woon. Euh, forcément dafay am dafay am ay conséquences ci euh, accident yi nga xamante ni dañu doon bëri di si ñaa nit di si ñàkk seen bakkan day wàññeeku bu baax a baax donc loolu moom je pense que ni loolu moom moo ko loolu moo ko waral mais man sa accident bi dam koy relativiser. parce que gis nga. Mhm. accident mooy loo xamante ni lu soudain la te lu lu ñu lu imprévu. pour ñu mën a wax ni lii euh, accident la euh, déjà dafay am euh, day day brusque mhm. ba noppi am loo xamante ni yow doo ko foge mhm. mais li ñuy gis ci tali bi mën nañ ni brusque bi ok mais imprévu bi kenn du ko wax mhm. parce que ngay dawal oto boo xamante ni amul frein boo ci defee accident wala boo ci defee lenn defoo accident. tey yegg mooy miracle bi. voilà nga bañ a mhm. def accident mooy miracle bi. Mhm, nga bañ a nga bañ a def jéye sax du ma ni accident def jéye. mooy mhm. miracle bi. li ñuy tuddee accident lu bëri du accident. mooy nit ñoo xamante ni dañuy sàgganee seen bakkan sàgganee ay bakkanu nit ngay dégg sax ñenn ñi dem ba ci réseaux sociaux yi dinaa man de sama oto bii ba mu nekkee ci tali bi ña nangami 4x4 laa romb ci tali bi. di ñu ñu tuddee wax yow gaynde nga xamante ne foo gisee dañuy fi tableau de bord bi des fois jël vidéo di ko filmer. oui tëral kii bi même aiguille bi. ma vidéo compteur 200 à l'heure voilà. ngay ngay gis ngay gis euh, gaynde di ko daw ñii naan dañ koy wax nga xam ne bëgguñu jàmm. mooy da duma ko war donc loolu noonu tey bu ci musiba amee bul wëlbati ko ni lii accident la jàpp ne lii tayef la. lii sa négligence la. Hmm. te effectivement li ñuy gis ci tali lu bëri négligence la ak comportement nit ki. te comportement nit ki day dem ci administratif bi day dem aussi ci ki nga xamante ne moo war a contrôler contrôler wu day dem ci ki nga xamante ne aussi mooy chauffeur mais aussi day dem ci client bi Moustapha combien de fois ngay gis oto boo xamante ni yow sa bopp da ngay gis ni talibé ngi nii ci suuf oui nga ni naa dem rek kooku bu la ci dara dalee bul ni ndogalu yàlla boo yéegee ci kaw quatrième bi nga tëb boo ci dammee bul ni ndogalu yàlla et puis euh, Pape Dogumal da ngay gis euh, euh, transport yu mag yi bus yu mag yi nga gis tout le temps ñu la war a image naan la El Malick jaay dem na place sàngam wax ne euh, nañu respecté place bu ñu surchargé tout yow nga bëgg dem ndar fekk oto bi fees ñu tegal la ay chaise ci biir nga yéeg toog mais loolu comme tu dis bu la ci dara fekkee dama yàlla bal yaa non gis nga gis nga comportement nit ñi la seen bopp mooy ñun ñi nga xamante ni ñoo dugg ci oto yi ñun ñooy nangu yenn conditions yi moo tax ñu ñu koy teg mhm. tey jii wax na léegi euh, salam euh, bu ma juumul salam transport ak ñeneen oui macha allah ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni tey dañuy ñëw valoriser nit ni bakkanu doomu aadama dafa fort que nit ki bu ñëwee di demande benn service mais da ko war a teg ci meilleure condition. Mhm. mais da ngay gis Pape Makhtar bàyyi ko fa ni non non xaaral dem fële kër lii wala kër lee jël fa oto. donc ñun ci suñu bopp ñun ñoo parfois ñooy mel ne ñooy refuser le développement ñun ñooy bàyyi condition yu baax yi dem di wëlbatiku di naan way dañuy yàqamti dañuy lii dañuy laa. est-ce que c'est pas parce que yële dafa cher. parce que boo xoolee souvent sax du sax du sax am différence. bu amee différence du bëri. foofu ma préciser la nga baal ma sax. gis nga client bi bañul fay plus cher. en terme en fonction de la qualité de service macha allah transport dafa choisir traité client bi de manière royale. Mhm. nga mën a booker. à l'avance dem dugg. ñu jox la peut-être même benn jus wala benn ndox bu sedd. Mhm. jox la quelque quelques friandises ci yoon bi. taalal la climatiseur mais ah. kam moo bëggul loolu am na wifi am na te pourtant ñoom transporteurs yi dañoo dem na du fi dawee alors que moom wut na ay document mag léppam à partir de ce moment ñu négocier na dem dugg ci gaaru ceer bi ñu ne bu duggee ci gaaru ceer bi day ran et cetera ainsi de suite mu wut am place boppam ñu ne du fa départ ah bah l' pris ses responsabilités parce que ñun askan wi dañ fi nekkal mënuñu xañ askan wi quand même. mi mi ngi daw fi mu nekk. bu baax. c'est ce qui est arrivé à allah parce que dañ leen a tere woon. ñu daw macha allah lay wax ñoom laay wax. Saint-Louis lañ leen tere woon. d'accord alors euh, pour dire que vraiment euh, ñun aussi ñun askan wi ñoo war a xoolaat euh, souvent suñu comportement euh, yenn yi kenn waru ko accepter bien que li nga xamante ni mooy autorité dañu wax jël seen responsabilité parce que aussi dañ doon dégg moo jiwu ministre fi jóge woon doon wax ni xaw ma quarante et quelques pour cent des voitures échappent mm-hmm. weesu loolu yow ñu teg la pour que kenn bañ a échappé contrôle technique nga ñu wëlbati ko di wax sénégalais que ni am na oto yi échappé contrôle technique. c'est un aveu. aveu la donc yow mi nga xamante dañ la fal pour que loolu bañ a am bu amee bul wëlbati ko di daan sénégalais ñii de dañuy rëcc. kon yow démissionnaire parce que da nga da nga da nga da nga da nga da mhm. donc moo tax ma ni yaa war li tax duñu mais c'est ça donc tey euh, mbirum transport bi accident yi di coûter bakkanu euh, doomu aadama yi dafa bëri li koy expliquer mais lu ci gën a gën a gën a gën a gën a gën a feeñ mooy parfois suñu comportement ñun ñooy xool oto bu bon di ci dugg sous prétexte que dañu yàqamti mhm. dañuy bàyyi ba dernier moment ñu xool ni bus bi moom moo fi des ñu ne xool kañu kañ kañ ko njëkkante dem dugg ci wala ñu xool ni d'accord euh, oto bi xaw ma lan ak lan dem dugg ci bu ñu changé comportement. Mhm. lu bëri ci accident yi dañuy wàññeeku. maintenant beneen mbir boo xamante ni aussi yaakaar eh naa ni voilà euh, dañ ko dañ si dañ dañ koy négliger. parce que mhm. accident euh, du du loo xamante ni mun na ñàkk parce que accident la. Mhm. mooy loo xamante ni moom laa wax léegi lu imprévu lu soudain organisation des secours. yeneen réew yi. dañuy am nangami accident mais dañuy organiser des secours mais Sénégal nag boo demee sax ci urgence yi ci l'hôpital yi fi ne hmm. problème la waxuma laa nag dañuy naan ngay xalaat naan ñu dem jële ji ay nit yoo xamante dañu accidenté pour mun leen jël en charge donc bu ñuy fexe ba organisation des secours mën a am accident dina wàññeeku bu baax a baax a baax a baax te yaakaar naa ni bon kenn du ko rafetu daal mais je pense que ni euh, lobby la boo xamante ni il il faudra face te ñoom ñu ngi ci tànk yooyu dañ leen ci encouragé. d'ailleurs El Malick wax léegi comment il va faire parce que souvent dañu wax ne transport bi kenn mënul leen dara hmm. ministre bu jéem bàyyi mais là j'ai l'impression que ni moom <laughs> il est. am na lu mu wax sax lu am lu am solo ci quelques secondes rek. mooy ci wàllum wàllum wàllum euh, lu mu tudd chauffeur yi. mais loolu man yàgg naa état mënut a nekk état ngay dégg ñu lay naan yow sa taux emplois dafa wàññeeku. FMI ak Banque mondiale bu ñuy ñëw di xool ñaatay liggéey duñ ci boole chauffeur taxi. waaw duñ ci boole chauffeur car rapide yi. duñ ci boole euh, ñii dawal njëga ñaay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen et pourtant ñooñu dañu xëy di gont. emploi la. yori famille mais lan moo tere état du Sénégal. di defal ñooñu wala di exiger ci ces transporteurs ñu defal leen ay contrat ñooñu dagg di di di di fay ay TV ak di fay leneen ak leen ba ñooñu bu ñu demee ba yenn âge yi. Mhm. mais ñu leen di fay. ñu leen di fay mën na nekk. alors Pape euh, euh, wax nañ quoi le le euh, la recette Dakar Dem Dikk.